Réumi 24 TV dalen ak jamu samedi 2 eh, septembre eh, ñu gis ne rek ngina eh, ba ñu gisee BRT bi mu daal di isaran mu doon lo xam rek lu doy war la kon fi ñi wax ak rek ginnaaw bu nga xamee ne ñu ngi ci wàccaayug magal Tuubaa gi magal gi daal di nekk lundi kon terrain bi nga xamee ne rek jamono yi mom moy yëpp askan bi di leen yobbu fofu ci Tuubaa fi ñi wax ak yeen ni terrain bi daal daal dinay paan fa mu pan nak fele ci Daaru marnan jamono yi foofee rek la terrain ba daal di pan mu doon lo xamné rek askan baangi ngi sonaloor ginnaaw rek ba dekk bi rek ne xass ak ndoxum taw mo xamna rek inondation bu doy war fo tourner rek gis fo ndox mu bare bare kon dal magalu ren gi mum dal dinay metti lol ci askanu senegal fi ñu wax ak yéen ni kon fële ca daru marnan foofee rek la téré ba dal di garé rek ndax ab pan bo rek moko téré dem kon bok mi ngok askan ba ngok di gënd rek s'ouvrir ginaaw rek ba ñu xamee ne samdi, gi fi tol ni tay ji rek la euh, samedi ginaaw suba ci lënd bi rek dal la faské def li nga xamné moy magal kon bok mi ngok ko train bi dal fofu la mujjé fi ñi wax ak ni